jàmm li ñuy ñaan fii ci Sénégal ayca mbokk internet yi ñu ngi leen di ziar di amaat mbégte di àndaat ak yéen nuñ koy defee saa su suñu gan nag dafa doon ñoo xam ne dañuy spécial ci la ñuy yëngu seen xel da cee màcc lool ba tax ñu daal di baaxee li nga xamante ni lépp loo xam ne xam-xam la daal di koy bokk ak askan wi tey suñu gan mi ngi wuyoo alhakim uh, borom sarax yi tey moom la ñu seeti fi nga xamante ni mooy Ouest Foire en face Philippe Madeline Senghor ñu koy ziar ñu bàyyi ko mu nuyoo képp ku koy seetaan à travers Dakar Instant.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 Euh, di nuyuwaat waa waa sit bi. Mhm. di leen ñaanal yàlla di ñaan suñu borom gën leen a dimbali. amiin gën a dimbali mboolem jullit. Mhm. ndax dañuy wax ne ab jullit moom buy ñaan buy ñaan na ñaanal ñëpp. macha allah ndax loolu loolu la suñ borom jàngale. te loolu mhm. mooy tax suñu borom man ñoo defal ijaaba. di ñaan suñu borom defal ñu ak saxaadatu daare ne alaama macha allah uh-huh. dégg ngeen nuyoo gu seel gi waaye itam ñu koy ziar bu baax a baax alxakim moom borom sarax yi lu tax borom sarax yi. soxna Aïssa loolu xam naa ni du ma ci du ma du ma ci taaye di wax ndax parce que damay wax ni arab yi dañuy wax ne maanaam fenn kasrata asma dala doon xalaa salfil musamma maanaam dara bu teddee rek fokk day bëri tur moo tax daanaka suñu tur dëgg Abdou Hakim la Abdou Hakim waaye borom sarax yi faaw dafa amaan beneen tur boo xam ne borom sarax la macha allah borom sarax nag mooy souvent dañuy faral di gis eh, ñiy faral di def ay sarax. te nit ñi dem nañ ba xam ne sarax moom mooy lépp. mooy base bi mooy lépp mhm. bañ na ko ba sëriñ bu lay ñaanal bindal la jox la nga takk ba sonn du am résultat nga dem ci moom mu génne loola sarax bal bi déclenché. Mhm. moo tax sarax dafa nekk loo xam ne dafa efficace te dañuy wax ne gis nga sarax. Mhm. Eh, du wàññi alal dafa yokk alal. waaye nag xam na ngay génne lan la ndax souvent nit mi ngi génne loo xamee ne te damay wax ne gis nga jëf mom ba ci julli sax bala nga ko def deug deug fexal ba xam suñu borom lam ci waxoon mhm. lan la ba pare nga doog a julli mhm. jëf lepp looy mën jëf xamal lan la ci yalla wax mhm. sarax lepp loy génne xamal lan moy sarax bi lan deug deug ndax parce que damay wax ne nit ku ne da nga am sarax ba ci yow mi tok ki da nga am sarax bo da nga ko masal mo xam nga am loy wut bo xam ay kayit wala ngay wut wërsëg am nga sarax bo xamee ne sa di am na ci sarax boo xam ne boo koy génnee di tëju mhm. am na ci sarax boo ah, am xam boo génnee da ngay tëju da gën a tëju am na da parce damay wax ne nit ku ci nekk danga am sa loolu loolu wàllu xel a joom la mhm. da parce dafa am ay biddiw yoo xamee ne euh, dafa am ay ay kii yoo xamee ne nooraan yu la am yoo xamee ne euh, zulmaan yu la mhm. na parce que ki nga xamee ne zulmaan yu la bu fekkee dafa génne lu loo xamee ne nuraan yu la day tëju mooy kii nga xamee ne dafa war a tuur deret ak ki nga xam ne war a deret mm-hmm. moo tax noonu la mel moo tax dafa nekk lu danger nit ki bala ngaa génne xamal la ngay génne lan la mais sarax nag lépp la man macha allah mën naa fal président man naa fal député man mm-hmm. naa fal maire lépp la mm-hmm. man ci àdduna ba ci ki nekk yowmal xiyaam sarax sarax man na koo mën na koo dimbali ka ca yowmal xiyaam ka ca yowmal xiyaam sarax mën na ko moo tax dèjà ndegam ku nekk yowmal xiyaam la sarax di dimbali sa ku nekk ci kaw suuf moo tax dañuy moom lépp la man yow xam la ngay génne lan alxakim dangaa làmboo xam-xam gi de daa mel ni. waaw xam-xam damay wax ne dangaa wane wut rek. Euh, xam-xam damay wax ne dañuy jug ci di sàkku xam-xam. Mhm. ndax xam-xam amul ku naan la fii la yam mhm. ba ba ba ni ni may ni may dem ba am quatre-vingt-dix ans. Mhm. moom la ñëpp di ñaan yàlla. incha allah rabbi waaw. Euh, ba jamono jooju dama koy sàkku ndax. xam-xam. loo xam tey suba mën nga xam leneen ak. dëgg la xam-xam du tuut. moo tax daanaka loolu la. Mhm. waaw Aïcha dañuy jaaree xuus ci li nga xamante mooy waxtaan bi macha allah gannaaw bi nga défilé li nga xamante ni mooy borom siraas parce que ñu bari dañuy bëgg di xam lu waral loolu. Mhm. ñuy wax ci li nga xamante moo jëm ci wàllum listaxaar ñu gis ne nag Sénégal fii sëriñ si ku ci nekk ak. anam ba ngay defee listaxaar ku mhm. nekk ak nañ koy defee ñi naan ah, niñ koy defee du nii ñi naan niñ koy defee nii la waaye yow tey jii bañ doon a wax <laughs> waaw ndeysaan maanaam saa su ne damay bëgg sax di ci waxtaan. di ci mhm. leeral nit ñi ndax parce que gis nga listixaar damay wax ne ku naan la day jël ñetti nit kooku mu listixaar. Mhm. listixaar bi gën a wér benn personne da ngay jël. benn personne benn personne. yàlla dimbal nañu ba seet duñ ko def ndax seet. Mhm. Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne. képp koo xamee ne dem nga ci seetkat. mu wax la nga gëm. Euh, mu wax la même bu la waxee nga dégg sax waaye gëmoo. Eh, li ko yàlla yónni woon weddi nga ko moo tax daanaka dañ koy daw seet mhm. nag du caage ni eh, maanaam ñiy def petaaw ñoo ñoo tax ñuy wax mhm. mais bu dee ñi nga xam ne dañuy tomb mhm. ñooñu du seet ndax parce que loolu xel mu ramlu la ah, loolu xam-xamu biddiw la d'accord loolu yenn saa yi di nga toll benn jamono yoo xam ne da nga am aajo ju jàmb loolu day tax nga def ko tey jii masalan tey boo ñëwoon jékki-jékki ñëw ci man ne ma ah, man dama am aajo bu jàmb bu jàmb boobaa du xaar guddi may fanaanoo may jël ramlu rek ma xoolal la ci suuf. d'accord moom nga koy defee. waaw mhm. bu fekkee nag danga am ah, dama bëgg nga xoolal ma samay mbir lan moom ma gàllankoor ak yenn yoon laa war a jaar. Mhm. lisxaar laa la ko mën a defal. te lisxaar bi nag moo lay euh, tegtal oriente la teg la ci yoonu jub. Mhm. yoonu sarax boo xam ne boo ko defee sa mbir dina faju moo tax daanaka ay ay ay version la yu bokkul. bu dee ki nga xamee ne nag day day def euh, lu mel ne yor pitaaw ak yooyu kooku seet la. seet tey gis nga ñooñu souvent damay wax ne ñooñu. yenn saa yi souvent lu ci bëri mën nga dem mu wax la. Mhm. waaye lam lay wax da da da koy day tombé na parce que mbiri saytaane la. Ah, dafa yor saytaane waaye nag waaye lam lay lam lay lam lim lay may lam lay mhm. xañu ko. Mm. moo tax souvent saa boo ko gisee ku koy dem rek. Mhm. lam lay wax lépp mën koo gis mais la ngay yàqule moom. moo tax damay wax ne chaque chaque fois damay wax ne nit ñi dañ ci bàyyi xel bu baax. li gën a wër mooy euh, listixaar boo xamee ne mën na laa teg ci yoonu siraatal mustaqiim mhm. te gis nga listixaar lépp la mën mhm. yow mi nekk Canada mhm. wala nga nekk Siin boo bëggee mënees na laa wax la nga soxla ban manière ngay defee listixaar listixaar nag fanaanoo lay am xam ñaan sa turu yaay sa turu papa yow ak sa tur gis nga li gën a wér xam-xam moom nit ñi dofatuñ ndax xam nañ ne lu yenu maanaa tur kase du existé tur kase existé wul lay existé sa tur ak sa ak sa turu yaay ak sa sant tur papa sax jaru ko. jaru ko ci sa tur way jur. Mhm. loolu mooy sa tur way juru jigéen. mooy dox. ba tax na mhm. kii nit ki ngay même nit koy mën a liggéeyal di di ko ñaanal. faaw day am turu yaayam. lu tax ngeen taamu turu yaay te ah, euh, wax ne euh, nit ki bu fekkee ni dafa tollu diggante. Mhm. fan ci ci kan lay jógee ci way ku góor gi lay jógee wala ci ku jigéen ki. ci ku jigéen gi da la ñuy dégg. foofu lay jógee léegi nag foofu mooy base ba. Mhm. bu doon garab nga ni tey jii garab bi dafa am ay doom doom lu mel ne nga ni garab bi dafa am garabu orange la. Mhm. wetti nañ ko fan lañ ko wutee. Mhm. Euh, ñi ngi ko wutee Casamance. Euh, léegi doom yaa ngi fii. léegi. garab bi fan lañ ko fan maam bu ñu bëggee xam fan la jógee dañ dem ba mhm. Casamance ci nday ja d'accord mais au lieu que dañu xool papa ji mais ca nday ja la xool kon daal lépp def bu ñu gisee ne garab gi mhm. dafa am yoo xamee ne saa bu juree rek doom bi ay conséquences am mhm. maanaam day am ay doom yoo xamee ne mën naa mën naa lor doomu aadama yi dem éliminer jéem a éliminer nday ja macha allah fa la doom ja fa fa la fa ay doom nit ñi di ko wéttee fu ne di ko yóbbu fu ne moo tax nday nday mu ci la lépp nekk ndax yàlla dafa wax ne boo yoree benn joxal nday nga yor ñaar joxal nday nga ah, yor ñett joxal ah, ndey. ñeenteel nga doog a jox baay. jox baay moo tax ci la ndey moom ci la lépp nekk. macha allah dégg li nga xamante ne wax na ko alhakim borom sarax yi jëm ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllum listaxaar yow mi nga xamante ne yaa ngi fépp ci diaspora bi du ñu bàyyi xel à travers Dakar instant soo ko woowee incha allah lu jëm ci wàllum listaxaar dina la ko defal waaye aussi ñu ñëw ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllum ubbeeku parce que képp koo gis ci àdduna bëgg na ubbeeku mhm. bëgg na ouverture ndax ay mbiram gën a dox mhm. ñu bari nag seen mbir day tëju dañuy doxa doxa dox ba à la ñu am benn espoir mhm. tey ji lan nga leen di wax euh, li may wax ne ab jullit moom warutoo maanaam euh, ndax yàlla moo ne euh, moo ànd ak way muñ yi ndax ab mhm. jullit foro muñ waaye nag bu lu ma muñ muñ muñ du ma toog bàyyindi ko ndax damay wax ne gis nga jamono ji toll nañ foo xamee ne ku ñaan luwut mhm. doo dem fenn euh, dëgg la nit ñi ñi ngi ŋàññi sëriñ yi de mhm. waaye ku ci ñaan doo dem fenn ndax ka la ka la gën a tedd ka la gën a ëpp wërsëg ma ngay ñaan boo ko xoolee du fenn di kala gën a lépp lu ñuy jogante bu ñuy def mu jël ko. Mhm. boo ko seetee ba ci biir du fendi dafay ñaanlu yàlla dimbali ko. Mhm. te jamono ji toll nañ foo xamee ne maanaam euh, ñii xëccoo dafa bari. nit mhm. ñaa ngi liggéeyante ñii ngi yàqante ba ci lu ne ngay gis moo tax nit ñi damay wax ne nit ku bëgg dara dëgg-dëgg nay ñaanlu. Euh, bu dee ki nga xamee ne dafay am jafe-jafe ci wàllu wërsëg. gis nga wërsëg li koy tëj dafa bari. comme li tey jii bu fekkee ne dama sama suma biddiw bi dafa nekk leer. Mhm. may jëfandikoo sobe maanaam jëfandikoo sobe bu mooy. Mhm. ma nekk xale bu góor amuguma soxna. Mhm. mais man sama biddiw bi leer la dafa am biddiw bu leer am biddiw boo xamee ne lëndëm la. lëndëm bi mooy zulmaani yu leer bi mooy nuraani bu fekkee ne man sama bos dafa leer ma nekk waxambaane boo xamee ne war naa am soxna mais amuma soxna. chaque jour maa ngi fanaanoog jigéen. kooku ay mbiram mënu fexe ba mu avancé. dëgg la am na ci koo xamee ne biddéew biddéewam lëndëm la. Mhm. war naa am soxna aw soxna. Mhm. chaque jour maa ngi fanaane jigéen samay mbir day dox. Mhm. ah day dox. day dox ki nga xamee ne bosom lëndëm la. moom bu defee sobee ay mbiram day dox. am na ci ñoo xam ne da nga koy dégg mu ne la man de damaa seetlu benn affaire bu ma moyee rek ci laay gën a amee wërsëg. da ngay seet loolu rek. moo tax dafa nekk ay mbir yoo xam ne dafay loolu wàllu biddiw lay doon. dafa bëgg wërsëg. Mm-hmm. am na ay yoo xamee ne dañ koy def nag yoo xamee ne ci ci ndax parce que ñun yàlla dañoo dimbali ba lépp lu ñuy def rek ci biddew yi la ñuy sukkandiku. macha allah ndax biddew dafa am dimanche. ba mm-hmm. ba samedi. sept jours yi. Mm-hmm. dafa am ay biddew dafa am ay tur. tur yooyu ci la ñuy sukkandiku mii da am biddew. sa biddew dafa am tur. tur boobu dañuy xool ban bis la judd ñu wax la ñu la talaata nga judd. waaw ñu ne talaata de kii wërsëgam day dëgër. waaye nag dana dina am loo xamee ne boo ko defalee yàlla dina ko dimbali wala ñu ne kii alxamis la judd ñu ne eh, kii de borom borom bayra la bayra lay doon hmm. ñu ne kii ah, dafa boole ñaar wërsëg bayra faw force nit ñi dañ koy bëgg hmm. kooku am na loo koy defal day ànd ak protection donc biddiw yu da ngeen di xool ci jour bi mu judd rek automatiquement ngeen xam biddiw moom jëru ñuy wax jëru muy wax euh, bis mu judd mën nañ ko ko wax ndax am na ay xool yoo xam ne boo ko defalee mhm. wàllu adat lay doon boo ko defalee di nga xam ban bis la judd macha allah même boo boo ko calculé wàcce ko di nga xam ban heure la judd mhm. te heure yooyu la ci joué moo tax damay wax ne gis nga xam dëgg yombul mhm. mais bu la ko yàlla déngee bu la ko yàlla boo ko bëggee sax da ngay sonn gis nga a xam ne dama la bëgg a ñaanal waaye faaw ma xool sa biddiw faaw ma xool sa sa bin bis nga judd faaw ma xool heure ba nga judd parce que yooyu da ci joué mhm. gis nga lépp lu ma leen defal dama koy dàkk ci heure yooyu ci heure yooyu lépp lu ma ci def rek bal lay doon mhm. moo xam ma lay ñaanal wàllu wërsëg mhm. wàllu kaaraange wàllu fay wax yooyu yëpp dafa ma ay bis gis nga tey jii euh, nga bëgg yow soxna Aïssa euh, comme masalan tey nga bëgg wërsëg Aïssa xam nga Aïssa boo ko euh, boo ko calculé daf lay jox ci bis yi nga xam ne dimanche te dimanche ci la lépp xew maanaam tey gis nga Euh, bokk na ci nga koy faral di saraxee lu mel ne soow. Mhm. lu weex. macha allah ah, parce que euh, bis la boo xamee ne dafay dafay gaawal wërsëg. jibeer mm, mais nag waaye bi na dimanche dañu wax ne euh, ki nga xamee ne dafay judd dimance lu ci bëree bëri wërsëgam du toog ci loxoom lu ñëw day dem. Mm. souvent ñu ci bëree bëree bëri day day wërsëgam maanaam lu ñëw day dem. mais nag noonu la wërsëg yi ñëwee. mais noonu lay dem waaw. Mhm. donc li nga xam ne wax nga ko fi yow dafa mel ne su moo ko jëlee ci wàllum jàngat mooy waral sëy yu baree bari naka ni ñuy duggee ci wàllum biddéew duñ ko xool mu daal di gis nga mhm. sëy da nga ko war a xool. Mhm. gis nga tey am na sëy yoo xam ne tey jii mooy euh, comme nga ni Xaysa. Euh, Xaysa mi ngi sëy ku ñuy wax Adama. Euh, Adama ñoom ñaar biddéew yi àndul Mm. tey biddiw ba euh, tey mën naa ànd comme ñu ni Aïssa mu ngi mm. sëy ku ñuy wax Babacar mm-hmm. biddiw ba ànd na waaye yàgg-yàgg taxali ko dem li waral loolu maanaam ci biddiw bi lay doon ndax ah, ci biddiw bi dafa yoo xam ne da lay da lay leer am na ci ñoo xam ne dañ lay junj ne la sëy bi baax na kese nga dem waaw ñu ci ëpp nag loolu lañ leen di wax nag dañ naan la sëy bi baax na mais am na ci koo xamee am na ci boo xamee ne boo ko xoolee mm-hmm. dafa ne la sëy euh, baax na mm-hmm. waaye taxali ko day am sëy bi baax na waaye coow day am Mm-hmm. sëy bi baax na. waaw surtout boobu baax na waaye coow day am. sëy bi baax na waaye ci tribunal ngeen mujjee sëy bi baax na waaye di nga am njaboot sëy bi baax na waaye du am njaboot noonu la mel. sëy bi baax na te loolu obligation la. faaw da ko war a xam xam nga damay wax ne nit ki bu ñu la waxee ne la boo seetloo ne dama ku ma bëgg a denc soxna. Mm-hmm. bu ñu la waxee ne la baax na rek bul yam ci kooku demal xoolaat keneen ko xam ne mën na laa leeral. li ci nekk xam nga ñaan yàlla moo tax ñu naan Euh, li ñuy ñaan yàlla mooy nga xam li nekk ci biir. Mhm. tey képp koo mën a gis ci ñaan li muy ñaan yàlla mooy sëy bu barkeel. Mhm. te am njaboot. Mm-hmm. loolu la ñaan yàlla. Mm-hmm. moo tax loolu dafa ay mbir la yoo xamee ne xam naa su jëmmi jamono dinañ ko mm-hmm. leeral. non macha allah ndekete ndekete ndekete alxakim daal paate alxakim daa am lu bari lu mu <laughs> làmboo. waaye xam naa yooyu yëpp bugg ci wax waaye incha allah dinañ ci gën a waxtaan. mais aussi tamit ngay évoluer ci lu am solo. ci wàllum produit ci wàllu tradipraticien naam xam-xam gaa ngi fi. mais aussi da ngay dimbali néew di doole yi ma bëggoon ñëw ci produit yi tuuti. waaw produit bi dafa dafa am damay ñëkkee ci euh, ndoxu cité bi. ndoxu cité parce dama wax ne jamono ji moom mhm. ñëpp am ndoxu cité mhm. waaw ndax parce que ñëpp ñëpp am ndoxu cité mhm. euh, gis nga ndoxu cité euh, ci góor laay ñëkkee ni muy def góor dina téye góor ci wàllu mandiwam dina ko téye ci wàllu am doom dina ko téye góor dañu maam dañuy leeral rek ndax parce que dañu wax ne nit ki booy jàngale booy jàngale moom faw mu leer faw mu leer dina téye góor ba nga xamee ne wàllu ngóoraam du mat dina téye góor jàpp ndigili dina téye góor di xasan yaram bi Mhm. ba tax na day am ay ay ay ay jafe-jafe moo tax li gën mooy faawu nit ki bu fekkee ne da koo am mhm. euh, yàlla mën na ko dimbali bu fekkee jël na sase yi mhm. yàlla mën na ko dimbali ba loolu du am bu dee wàllu euh, ndoxu siti dafay def euh, mooy créer hémorroïde souvent nii waa na ku ne la man dama amee hémorroïde amul ndoxu siti gis nga wàllu ngóore yi ñuy jàmbat ni nit ñi jàmmat naan damay gaaw a egg ak yooyu yëpp ndoxu siti la ndax parce que ndox siti mooy créer émorite émorite boobu mooy dem ba waral ngóore bi na mu war a doxee dëgg-dëgg dafay def te booy seet Sénégal léegi ñëppay jàmbat émorite ok loolu la nag ndox siti moo dem ba créer émorite gis nga bu dee émorite bi mhm. bi nga xamee ne dafa feeñ ak bi nëbbu lépp lay traité ndax parce mhm. que dañuy wax ne gis nga sachet yi euh, benn sachet rek la traitement benn sachet la mhm. moom lañ koy joxe ñaata temps lay durer euh, sachet bu ci nekk trois butéel lay bu sese bu dee wàllu faiblesse sexuelle bi. Mhm. deux butéel lay doon mais bu dee amul bi trois butéel lay doon. trois butéel noonu lañ koy mais. da koy def ndox. waaw ak yeneen ak yeneen yoo xamee ne da koy def. yenn secret yi mais euh, la ciy leeral mooy maam ndoxu siti daal. dafa nekk mhm. feebar boo xamee ne feebar bu doy waar la. dina dina lëndëmal ay bët. Mhm. dina xasa bu dee jigéen ñi moom bariwaa na jigéen ñoo xamee ne problème mu doom yi ñuy am ndoxu siti moo koy waral. ndax parce que gis nga ndoxu siti tey bu yàggee ci sa yaram mën naa dem ba. sa butitu bi war a. kaay bi waaw daf koy yàq. Mhm. loolu ndoxu siti moo koy def. aussi dañuy faral di gis tam ñu ci ëpp seen yaram yi day tàng. dafay dafay demee lu foo toll seen yaram yaa ngi tàng. souvent loolu jigéen ñi ëpp lu muy dal. Mhm. yaram bi tàng di dagg karaw geeg loolu lépp ndoxu siti la waaye nag euh, ndoxu siti yi benn benn benn sachet lañ jox. Mhm. émeraude bi ak ndoxu siti ñoo ànd. garabu ndoxu siti bi nu mu tudd. Euh, produit alhakim. produit alhakim macha allah moom fa yaakaar naa moo jumul benn benn produit rek la. benn produit bi la waaw maanaam boo doon wër ba mais produit bu nekk ak la muy jariñ. non waaw benn produit produit bi. Mhm. Euh, allah. ndax parce que bu jamono ji booy traité da ngay traité ndox siti ba pare. Mhm. mu ànd ak émul bi. Mhm. ndax parce que boo traité émul bu fekkee ki nga xam ne émul bi day da koy da koy sonal. Euh, ñëwaat ndax parce que ndox siti ba la. dëgg la. moo tax li gën mooy dañoo après ñi defar benn boo xam ne ñaari yëpp a ngi ci. ñoom ñaar ñëpp ñaari composants yëpp la boole bu ko defee nga xam ne moom ngay koo xamee ne. Mhm. Euh, da ngay mhm. ki ma soxla mooy ki nga xamee ne dafa feebar. Mhm. ki nga xamee ne dafa feebar dafa feebar. ki nga xamee ne solution mënut a ki nga xamee ne day gaaw ki nga xamee ne du yëg bànneex kooku laa soxla. bu ko defee bu jëlee benn sachet bi lay jël mu jeex. te feebar bu bari nag la. fii au Sénégal dafa ci jamono ji. Mhm. moo tax dafa nekk loo xam ne nit ki ci bàyyi xel. lii waral yi koy waral bari na feebar lekk yu bon yi. Hmm. da koy koy def. Mhm. Euh, ndoxu siti koy def. Mhm. Euh, nit ñaa ngi liggéeyante da koy def. ki xam ne dañ ko liggéey nag moom du ko traité. du nga xam ne dañ takk xala ak du ko traité. Ah, da ngay da dindi takk xala. waaw <laughs> yooyu yooyu yeneen anam la. yeneen anam la waaw yeneen anam la. mais pour ñu leeral ne sachet bi mhm. moom. moom lool rek lay def. macha waaw loolu daal mooy mooy base bi. Mhm. waaw macha allah sachet yi clients yi ñu ngi ciy gis seen bopp. waaw waaw damay wax ne gis nga sachet bi moom. Mhm. Euh, des na ko tuddee euh, mos xam. Ah. waaw parce que euh, li may wax mooy. ki nga xamee ne dafa am jafe-jafe laa soxla mais soxla ma ki nga xamee ne dafay dute mhm. moo tax chaque jour damay am ay preuve ki nga xamee ne dafay am ndoxu siti macha nga xamee ne dafay am problème mu mhm. ah, na parce que dawuma ndeysaan dama daan toog lu yàgg dama daan dama daan kii rek àgg ci kaw àgg ci sama soxna mhm. mais damay toog lu yàgg damay dem ba dañuy yaakaar ne dama jël ay doom te fekk ne du lool te beneen bi mooy dañ ciy mhm. leeral amul benn doom bu ci nekk mhm. am bëri waa na euh, sase yooyu gis day am mhm. ay doom ay yëpp yaa ko defar ak say loxo yëpp man maa ko defar sama loxo bañ ko ba sama photo moo ci nekk macha allah dégg ngeen ko photo ma ci nekk alhakim borom sarax yi numéro téléphone baa ngi noonu 77 366 46 36 wala 77 091 77 26 mi ngi nekk fi nga xamante ne mooy Ouest Foire en face hôpital Philippe Maguiline Senghor képp koo xamante ne jamono li nga xam moo di seet si waaye aussi képp koo xamante ne yaa ngi amee lu jëm ci wàllum ngóora am ay tolof-tolof yoo xamante ne am mënoo kaa wax parce que aussi alhakim mm. li nga xamante ne moo jëm ci wàllum ngóora mm. góor yu bari ñu ngi souffrir góor yu mm. bari ñu ngi seen biir kër am nañ métit gi am nañ feebar gi mais amuñu fuñ koy jooytoo waaw damay wax ne gis nga nit moom bu mu am complexe ci dara mm-hmm. bu nit ki bu fekkee ne da ngaa feebar mm-hmm. wala faaw nga wax sa feebar ñu xam ne lii la daal mm-hmm. mais boo ko waxul moom dañ a xam moo nga nga mhm. mhm. nah, gis nit ko xamé am nga ci moom yaakaar té mu lér na ki amna source la da parce que amna ci fièvre yo xamé ni du ñëpp lañ ko mën a wax dëgg la té ji luma fekk nit koo xamee ne nitu kat la may ñëw diko jammat sama fièvre ndax nit ko gis limi ñaan yalla kenn du ko xamal dara mo tax limay wax né nit ki nañu bayyi xel ci lool gis nga sutura boo lay nit rek yalla suturaal la macha allah ndax parce que damay wax né aduna mu solo lépp lo gis da fay jeex xëy na nit ki am ci yow yaakar ba tax na mu ñëw wax la ko war nga koo mën a secret surtout waaye di ko di ko pasaare mhm. loolu baaxul ndax parce que saa boo ko defee rek dañ ci am bakkaar mhm. ndax yàlla dafa bëgg ki nga xamee ne dafay suturaal doomu aadama mhm. loolu mooy tax yàlla suturaal la moo tax dafa nekk yoo xamee ne nit ki boo feebaree rek demal ci nit ko am yaakaar nga ne ko amande ah, léeg lii mooma daal macha allah boo ko defee nag yàlla mën na laa dimbali man na laa waaye bu fekkee da nga koo téye noonu ngay dundee ba dee waaw te doo doo am benn benn benn njariñ ndeysaan ndax dañuy wax ne dëgg la euh, ci la bokk nga am soxna faaw nga fex ba am ay doom mhm. ci la bok ci aduna ndax dañu wax al malu wal banun sinatu xay dunya manam li di alal ak dom mhm. do bok ci li taaral aduna kon nag daanaka nit ko xamé dafa la daal rek jema la faju sha allah bo defé rek yalla man la dimbalé santa ngeureum lay jaajeufal bu baax baax waaw ma leen di jaajeufal di leen ñaanal yalla di ñaan suñu borom gën ñoo dimbali allahumma amin di ñaan yalla gën ñoo taxaw mhm. ndax dañu wax ab la koy war moy nay ñaan mm-hmm. tey tey tey muñ mm-hmm. ndax dañuy wax ne euh, ki nga xamee ne moo gën ñëpp moom dafa muñoon dëgg la ba yàlla dimbali ko mm-hmm. ki nga xamee ne dañoo jokk ci moom muy Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasul macha allah dafa muñoon ba yàlla dimbali ko ba lim am nii loolu moo ko may kon nag ñun ñi nga xamee ne dañoo topp ci ci ci ci ci ci ay ndigalam dañuy muñ ci lépp ndax dañu wax ne ab jullit moom bu bu bu bu bu nekkee jullit rek na te yi commencé na moo tax saa su ne nit ki nay nay muñ te gëm yàlla mhm. bu defee yàlla mën nañu dimbali waa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin ah, cant ak ngërëm ñeel na ko mu nekkoon tey suñu gan al hakim borom sarax yi macha allah gis nga li nga xamante ne waxtaan na ko ak ñoon ci jëm wàllum li saxaar wàllum ubbeeku waaye aussi mu andi ay produits yu am solo ni ma leen ko doon waxee léegi rek képp ku ci bëgg rek mën nga ko woo ci 77 366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 day wane lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant. Wow, c'est une première mais ni ma gisee Dakar instant dafay prouver ne Dakar instant ci kanam la jëm incha allah. gars ñu ngi koy suivre Dakar instant lan leen laay wax na gars dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen si Dakar instant. ce liggéey defe na trop macha allah. Mbacké loo wax ci waa Dakar instant. Wow, Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew. ndax bañ naa ko chaque jour bu ma xëy yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci bi da ko xool rek. looy na fi comme ci Dakar instant. Dakar instant yéen boo yeewoo moom laay seetaan.